Macky Sall ñëw na nee na carrément ni moom bokkul si li nga xam ni moom moo di élection deux mille vingt quatre bi je crois que ni là beaucoup de Sénégalais vont parce que tamit man mii sax personnellement je souffre parce que je me suis dit que ni je veux pas voir un autre mandat de Macky peu importe lan moo xew kan la joteel kan la xulool mais doy na ko en loolu man personnellement sama opinion personnelle la il choisira sûrement benn candidat boo xam ni moom mooy représenté APR mais dina teg li nga xam ne moom moo di ay disposition espérons ko mu nekk disposition yoo xam ni day valable disposition yoo xam ne day jub disposition yoo xam ne pour ñu mën a def benn élection bu am solo ñu teg fa beneen candidat léegi nag notre question yi nga xam ne moom la ñuy posé wu ñun ñëpp mooy ñan ñooy ñi nga xam ni ñoom ñoo nar a nekk candidat yi ñaar moom xam naa ne dinañ fa nekk moom Sonko. suñ ko bàyyee mu boxu parce que tamit question la suñ ko bàyyee mu boxu Sonko dina nekk candidat Idrissa Seck j'en suis sûr que vu que ni c'est le chef de l'opposition dina nekk candidat Khalifa Sall vu que ni grâce à amnistie yooyu may nañ leen ko dina nekk candidat et on peut même attendre le retour exclusif de Karim Wade kon saa léegi images yooyu noonu nga xam ni y a beaucoup de personnes yoo xam ne am nañ yaakaar si ñooñu on peut dire que ni dinañ nekk candidat kon élection boobu noonu normalement waroon na jaar si yoon chaque chaîne sénégalais choisir kan ngay votel et c'est ça loolu mooy élection mais fi ma buggoon ñu daanale mooy on doit remercier Macky Sall bon affaire bi nag dañ koy jëlee si deux plans parce que y a fond et la forme. La forme qu'on doit remercier Macky Sall, merci de nous avoir servi à Dieu. la je suis d'accord. Parce que quoi qu'on puisse dire, Macky daf ñu doon joobal daf ñu doon liggéeyal parce que quand tu une personne mettre ko dans de bonnes conditions nga koy fay salaire mensuel jox ko garde du ko li nga xam ni moom moo di euh, gasoil jox ko li nga xam ni moom moo di kérosène pour avion jox ko li nga xam ni moom moo di fond boo xam ni moom lay dundee moom ak njabootam jox ko li nga xam moom moo di fond boo xam ni moom lay yoree réew mi permettre ko muy dem di leb yeneen dëkk pour mu ñëw utiliser ñu jox ko li nga xam ni moom moo di confiance alors la président la man je crois pas que ni war nañ ko dox merci tey jii nii at nu mu mënti demee. bu fekkee ne dañu war a wax merci Macky dañ ko war a wax Ablaye Wade dañ ko war a wax Abdou Diouf dañ ko war a wax Senghor parce que ñoom ñëpp a job te jii nii bu la mettre à disposition xaalis boobu noonu lu mu tuuti benn jéego bu ndaw di nga ko def parce que régime politique régime gouvernemental benn genre succession la benn genre continuité la maanaam da ngay fekk diw commencé nga ñëw yeggali diw la mu munul def yow nga yeggali ko la nga munul def keneen ñëw yeggali ko la la nga xam ne fàttuñu ko ñu fàtt loolu mooy loolu mooy régime kon tey jii dafa mel ni tey man ma dem di liggéey si benn usine may liggéey si benn usine ñu may fay weer ma ñëw def li nga xam ni moom moo di sama devoir léegi weer bi dee ñu fay ma li nga xam ni moom moo di sama xaalis ma ne gars yi borool ma fay rek xaalis da nga ma war wax aussi tamit merci quoi gars yi mën nañ la ne mais va fan yaa ma gën a xam dañ la fay li nga def Macky Sall il faut ñu savoir il faut savoir que ni il a fait que quand il s'agit nag ni gedd bu mu gedd mooy ku gedd sa ay ah parce que moo fi toogoon naan eh, troisième mandat boo leen ko bëggee da ngeen ma koy ñaan mais si njekki nag comprendre nga mu nekk affaire bu ñu métti maa ngi affaire bu ñu métti wax boobu noonu man man du ma ko fàtte de ok léegi nag tey jii nii yow yaa newoon gars yi ku gedd sa yaay ay te yaa gedd de yaa gedd li nga xam moom moo di troisième mandat bi affaire bi du questionner par exemple tu es grand da nga am grandeur da nga respecter sa parole tu as suivi que la constitution bi nga xam ne yaa ko tey jii nii boo naroon bokk c'est impossible j'ai même vu des personnes yi nga xam ni jóge nañ si yeneen dëkk mooy maanaam Côte d'Ivoire vu que ni ñun xam nañ nu mu demee quoi quand on parle de Ouattara on parle de Macky Sall ñi nga xam ñoom la ñuy wooyee booy Macron yi quoi kon tey jii nii képp koo xam ne yaa ngi Côte d'Ivoire parce que j'ai vu des des live TikTok yoo xam ni gars yi génnee nañu li nga xam ni moom mooy euh, benn benn room ña dañuy ñëw wax ak gars yi parce que lan ñoo ñoom xam nga ay partisans Ouattara la quoi. léegi ñooñu dañu am sympathie par force si Macky Sall dañu am sympathie par force si dañ nekk ñaan je crois que ni sont yoo xam ne ñoom la ñu gën a saaga si si histoire Afrique sax Blaise Compaoré sax bàyyi saagawuñu ngor rek mais mooy loolu de c'est la même chose Amit ak Ouattara léegi les gens se permettent maintenant de venir nous dire que ni ñun nous sommes un peuple boo xam ne dañoo tuuti nous som un peuple boo xam ne duñu xalaat nous sommes un peuple boo xam ni ëllëg si biir ñu woowaat Macky Sall di ko di ko supplier pour mu dellu si loolu ñun ñoo tooñ suñu bopp je vous ai toujours di que nu nous sommes un pays grand il y a pas un pays africain meilleur que le Sénégal du si kom du si xel du si culture du si religion du du si valeur il y a pas un pays boo xam ni si monde bi je dis même si monde bi moo gën Sénégal quoi mais malheureusement ñun ñoo ko xamul tey jii nii quand on les d'autres personnes am courage ñëw di toog di insulter jeunesse su Sénégal bi parce que lan parce que ñoom pour ñoom ñoom ay tubaab lañ ay français lañ ay occidentaux ils parlent français pour ñoom ñoo nekk si poj or que c'est pas ça de ñu dellu si li nga xam moom mooy suñu discours bi Macky nee na bàyyi na et normal mu dem. léegi nag notre problème ñun tey fi ñu war a focus mooy vu que un pays boo xam ne on a toujours eu la peur du changement ñu dañoo mës a ragal li nga xam ne moom moo di changement pas seulement si li nga xam moom moo di secteur politique ah mais si secteur yëpp sénégalais yi dañuy ragal li nga xam moom moo di benn changement radical et dëkk yi nga xam dañoo développé yëpp dañoo am li nga xam ne moom moo di changement radical dañu dem jël li nga xam ne moom moo di leur destin en main et c'est le peuple qui dirige c'est le peuple qui wala bu fekkee peuple mënu diriger mu am benn président un digne leader boo xam ne da leen di mettre dans de bonnes conditions waaye gars yi ban nit la ñuy jox liggéey jox ko xaalis jox ko dund jox ko li nga xam ni moom moo di ay ay ay ay ay loi yu leer bu am bu bu amul kii moo tooñ amul kii tooñul amul kii moo am xaalis ki amul xaalis boo tooñee ñu dem tribunal tribunal tranché selon li nga xam ni moom moo loi bi amul néew di doole amul kumba amul nday amul ko dëkk boobu noonu kan ngay jox li nga xam ni moomul loolu muy xeex boobu noonu Macky Sall, s'il était excellent alors comme président, s'il était excellent comme président, s'il était excellent comme président la wax de après deux mandats yi day tëb parce que nous on veut continuer at li nga xam ni moom moo di dootu teg on va faire notre mission ëllëg dëgg la parce que du par exemple dañuy du par exemple ñun dañuy dañuy changer président rek mooy maanaam on doit s'attendre à être tous riches de dañuy changer li nga xam ni moom moo di régime président boobu noonu ñu xool premier mandat am lan la def s'il faut rien wala s'il s'il faut li nga xam ne moom moo di nga xam ne moom moo di président président par exemple Macky Sall bu ñu tegee Idrissa Seck wala Sonko wala waree ba Khalifa Sall ku mën na toog si li nga xam moom moo di bi. ñu xool li nga xam ne moom moo di sa sa premier mandat ñu évaluer ni gis ni carrément que ni tu as fait peu tu as fait peu laa de que Macky Sall. gars yi dañ leen tëbal déjà si premier mandat parce que ñun esprit boobu la ñu a toll jusqu'à trouver li nga xam ne une bonne personne. waratuñ nekk fii naan waaye nañ ko bàyyi deuxième chance premier waaye lii mooy premier mandat nañ xool deuxième mandat Macky toog na non non non niveau boobu noonu. moo tax des fois quand les gens que ni le prochain président a un sérieux problème Sénégal le prochain président a un sérieux problème xaw ma kan lay doon mais tu as un sérieux problème. parce que benn mandat benn si tu yi rien les promesses yi nga xam ne defal nga ko Sénégalais yi Sénégalais yi commencé ñu gis seen bopp dund gaa ngi continuer di cher hôpital yi changé wuñu ko amuñu ay auto ambulance amuñu li nga xam ne moom moo di secteur agriculture bi mu commencé dox amuñu li nga xam ne moom moo di léeg-léeg lii wax ma président yi nga xam ne dañuy ñëw ne ah ma fatt fii suma ma fattee fii ñii dinañ kontaan le temps que may fatt fee non non. ñépp nii lañ war a yéegandoo ndànk-ndànk même bu fekkee domaine bu nekk da nga yokk li nga xam ne moom moo di un pour cent ba lépp mat li nga xam ne moom moo di quatre vingt dix neuf pour cent wala quatre vingt dix huit pour cent tu le fais parce que ñëpp nga war a satisfaire sénégalais yëpp gi war a gis seen bopp justice bi moom waxuma ko moom justice bi waxuma ko moom justice bi gën a équitable président bi ni ñëw boo tegul sénégalais tëbal benn mandat kon Macky moo war a remercier sénégalais yi yi jox ko li nga xam moom moo di deux mandats may ko sax li nga xam ni moom la ñu woowee une seconde chance Macky moo war a ne sénégalais a jëf parce que sénégalais at nu mënti demee ils ont été patients avec le président Macky Sall ils ont été très avec le président Macky Sall personne personne n'a le courage de dire que ni Macky Sall n'a pas n'a pas travaillé Macky liggéey na loolu kenn weddiwu ko seulement que est-ce que li mu liggéey dafa conforme at li nga xam ne moom moo di attentes yi sénégalais yi doon xaar est-ce que li mu liggéey wax dëgg fa yàlla mën nañ ko woowee vraiment du développement dafa war a nekk benn développement artificiel mooy maanaam maanaam lu rafet Sénégal léegi dafa mool Sénégal dafa dafa kii wala dafa nekk benn affaire boo xam ne ki day naan maintenant Sénégal je me sens quoi man mi Modou dematuma li nga xam ne moom moo di yeneen dëkk pour am xaalis mais damay toog Sénégal quoi parce que gis naa une grande opportunité dans mon pays que ça soit si investissement yi que si banque yi que ça soit si nga xam moom moo di euh, tool yi que ça si lépp projet bu nit mën di def rek mu sentir si ni carrément man je suis ici ba tey tey nii la majeure partie kenn du jël gaal la majeure partie kenn du dem fi xam ne moom moo di Sénégal ñëppay toog man je crois que ni président bu mënti toog loolu ngay njëkk a def mooy maanaam sénégalais bu ci mënti nekk jaaykatu dàll bi jaaykatu beñe bi jaaykatu caaf bi jaaykatu ku si nekk mu am sañ-sañ xam ni carrément ni am na opportunité pour investir sàqamtuma laa ñi nga xam ñuy nekk si diaspora bi dootuñu amati tiitaange ne dañuy dem defar li nga xam ni moom moo di Sénégal et li gën a baax aussi tamit mooy maanaam la sécurité nationale mooy maanaam gendarmerie comporté wu dem defi li nga xam ni moom moo di école gendarme comporté wu am benn discipline bu baax parce que l'indiscipline si li nga xam ne moom moo di corps gendarme yeeg policier yeeg yooyu noonu y a beaucoup d'indiscipline ñu dem xam lan mooy savoir vivre ñu xam lan mooy comment se comporter avec les personnes am li nga xam ne moom moo di patience bu ñu mal éduqué bu ñu tàng xol xam ni carrément ne ay nit la ñuy waxal son des compatriotes y a beaucoup de choses à régler au transport bi culture bi éducation bi télé <laughs> président bii ñoo toog yërëm naa la yërëm naa la bu yeboon nga toog nga déglu bu baax dëggantaan ki fi toog laax nag man je m'en fous de moo fi toog wax dëgg fa ça m'intéresse peu mais ki fi toog fal di nga job de di nga liggéey de billahi wallahi talaal di nga liggéey bépp promesse boo def sénégalais di nga ko def sinon benn manda doo ko weesu te gis nga kon lii lañ tàmbalee léegi nag lii lañ tàmbalee du continuer réseau yaa ngi fi de réseau yi dafa am doole trop réseau yi léegi ñooy wàccee président yi léegi nag Macky Sall man personnellement man maa lay wax merci de nous avoir servi quoi waaw waaw merci de nous avoir servi wasalaam.